ñun en tant que ay jullit ñu def ci ay taxaw seetlu ñu xool lan moo ci taxawaay jullit euh, li nga xam ne moom lañ bëgg a def comme fàttali mooy ñu xool waqafaat maa corona maanaam ay taxaw géndiku wala ay taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy liy xew ñu xool lan moo ciy gis-gisu lislaam wala njéem a jàngat yenn taxawaay yoo xam ne jullit bi war na ko cee war na ko cee am taxaw seetlu bi nga xam ne moo jiitu moom mooy képp ku jullit dafa war a gëm ni amul lenn luy xew ci kaw suuf wala ci asamaan wala ci jamono gu mënti doon lu dul borom bi subhaanahu wa taala moo ko moo ko dogal idan kon li nga xam ne mooy liy xew mu lëmbee àdduna bi yépp bépp jullit dafa war a gëm ni donte am na ñuy wax loxo doomu aadama mi ngi ci waaye ñun en tant que ay jullit dañuy gëm ni yàlla subhaanahu wa taala moo ko moo ko dogal maanaam yàlla moo nam mu am ngir mu am moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ni wa ma tashaauna illa an yasha allah doomu aadama ni ñu bëgg loolu mënta nekk lu dul dafa neex borom bi subhanahu wa taala léegi borom bi ay dogalam daf ci am yoo xam ne dafay neex lool dëppoo ak bànneexu doomu aadama am ci yoo xam ne dafay metti lool xaw a waroo safaanu ak li nga xam ne mooy bëgg-bëgg doomu aadama waaye yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy dogal lu ko neex di ko dogal saa yi ko soobee di ko dogal tamit nam ko soobee moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon ñun lu ñu war li jiitu mooy ji gëm ni yàlla subhanahu wa taala moom moo ko moom ko dogal jàmm mënu ci mënu ci dara ñaareel taxaw seetlu gi mooy ginnaaw bu jullit bi xamee yàlla mooy dogal lu ko neex ci kim ko neex ci fi ko neexee ci jamono yu mu ko neexee dañu war a gëm ni kon coow li mën na bëri lool waaye jullit bi nga xam ne gëm na ni yàlla mooy dogal dafay wóolu yàlla subhaanahu wa taala mu gëm ni li nga xam ne mooy liy xew lëmbee àdduna tiital doomu aadama yi bari loolu jullit bi xel bu dal la ci war a am waaye tamit yaakaar borom subhaanahu wa taala ndax yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax ni qul lan yusiibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana waxal yow yonent bi sallallahu wa sallam waxal yow jullit bi lenn mënuñoo gaar lenn mënuñoo dal lu dul loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo daf koo bind ci ñun isan kon foofu lu ñuy gis foofu mooy a tawakkul maanaam nga jël sa bopp dénk ko sa borom sa loolu moo ko mën a moo ko a dalal waaye ñu xam ni am na tawakkul am li nga xam ne mooy a tawakkul maanaam boo jëlee sa bopp jébbal ko sa borom wéeru ci moom nanga war a def mboolem xeetu matuwaay yi nga xam ne xëy na wax nañ ko ngir nga mun cee mucc lu ñuy wax ci wàllu seet li ñuy wax ci wàllu toog suñuy kër li ñuy wax ci moytu jaxasoo ak nekki bel yooyu yëpp war nañ koo war nañ ko mën a def waaye ànd nag loolu na ngay gëm ni bu fekkee ni yàlla wax na dalay dal faw mu dal la waaye bu fekkee borom bi subhanahu wa taala wax na du la dal kenn mënta fexe ba mu ba mu dal la muy tawakkul wala xusna tawakkul billah maanaam nga dogu rafetal jël sa bopp dénk ko ki nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala mbokki ñetteel taxaw seetlu gi moom mooy jaam ginnaaw bi nga xamee ne yu mel ni am na am na ay mbir yoo xam ne ñoo ko ci war a ñoo ko ci war a war benn gi mooy dafay gëm ni yàlla subhanahu wa taala lu mu dogal lekk am na lu ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu taaun wax na ci yu baree bari wax na ci yu baree bari yoo xam ne xëy na ñoo koy ñoo koy sabab wala li tax parce que wax na ci benn xadis mu ne a taaun maanaam épidémie wala pandémie mu a jeexintalu mbugal la ci banu Israil maanaam yàlla dafa mbugaloon mu ne loolu nag yàlla da ko indi de temps en temps dafay jékki saay am jékki saay mu daal di mu daal di dem mu ne bu ñëwee nag dafa nekk nattu pour ñuy gëm yàlla nekk mbugal pour ñi nga xam ne gëmuñu yàlla subhanahu wa taala mu ne képp koo xam ne faatu nga ci an googu mu ne yow na ngay am daraja yi nga xam ne ñoo shahid ci yoon yàlla subhanahu wa taala idan kon jullit dafa war a gëm ni tamit digle lu baax ak tere lu bon dafay tax ba mooy yàlla yi nga xam ne jaam yi ñu ngi koy def doomu aadama ñu ngi koy def yàq suuf si loolu moom mooy loolu mooy waral li nga xam ne mooy delloo jañ euh, yi nga xam ne mi nga am parce que nee na wallazi nafsi bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom la ta'murunna bil ma'ruf di ngeen digle lu baax wala tanhawunna an munkar wala ngeen teele lu bon aw la yushikanna allahu an yabaasa aleykum iqaban min wala xaw borom bi subhanahu wa taala wàccee euh, mbugalam mu ne thumma tad'uunahu fala yustajaabu lakum ginnaaw loolu ngeen walbatiku di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala du leen du leen faale kon ñàkk déglu lu baax ak ñàkk tere lu bon mën na tax borom bi subhanahu wa taala yabal ay soldaaram yabal ay mbindeefam ñu ñëw ngir euh, faagaagal li nga xam ne mooy mooy doomu aadama mbokk yi foofu dañuy gis nii kon beneen bi mooy jaam ñi aussi faw ñuy ñaan jullit ngannaay mooy ñaan borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ni am man yujibul mutarra ida daa ana kan mooy wuyu ñaanu ki nga xam ne dafa jaaxle ana kan mooy wuyu ñaanu ki nga xam ne dafa lot yàlla kese la yàlla subhaanahu wa taala mooy wuyu ñaani yàlla subhaanahu wa taala mooy nangu ñaani kon ñun en tant que ay bu fekkee mel ni am na dañu war a gëm ni laa yarfaul balaa illa duaa maanaam musiba yi nga xam ne ñoo am ni lenn ko mën a jëlee fii muy bëri di ñaan suñu borom subhaanahu wa mbokk yi nañu bëril di ñaan yàlla subhanahu wa taala nañu wàccaat suñu boppu bopp toroxluwaat jéggalu suñu borom moom yàlla dafa bëgg ñu koy kañ dafa bëgg ñu koy bàkk dafa bëgg ñu koy kennal dafa bëgg ñu koy wàccee wàccu waayam kon ñun nañ bàkk borom bi nañ ko kennal nañ ko wéetal nañ koy jéggalu dañu toroxlul borom bi subhanahu wa taala di ko ñaan xamla ko yow yàlla amul kenn ko sàkk lii ku dul yow te amul kenn ko fu mën a jëlee ku dul yow ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhanahu wa taala nga daal ko fi daal ko fi jëlee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ay ñaan bokk na ci ñaan yi gën a fës mooy allahumma inni a'udhu bika min al baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa min sayil askam yow saa borom maa ngi ñaan nga musal ma ci yii bokk na ci yooju feebar yi nga xam ne dafay dafay lor jaam bi kon julit bi jamono gu ñu toll nii na xam ne dooleem dëggantaan mooy ñaan dooleem dëggantaan mooy li nga xam ne mooy di ñaan borom subhaanahu wa wataala yàlla musal ko ci mbir mi musal ci njabootam musal ci réewam waaye tamit musal ci fépp foo nga xam ne jullit ma nga ma nga fa mbokki beneen bi ci loo xam ne war na bépp doomu aadama mooy mel ni bu amee ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ñu xam dara ci diine waruñoo noppi war waruñoo fexe leeral jaam ñi xamal na ñu war a tuub delu ci yàlla subhaanahu wa taala xamal ne ñu war a jéggalu borom bi subhaanahu wa ndax yàlla subhaanahu wa taala mën a yëkkati li nga xam ne mooy mooy balaa bii mbokki beneen taxaw seetlu gi moom mooy jamono gu ñu toll nii war na bépp jullit mu bari li nga xam ne mooy mooy sarax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na daawu mardaakum bi sadaqa dee leen euh, faj seeni feebar ci génnee ci yoon yàlla subhaanahu wa kon jamono gu ñu toll nii yow mi nga xam ne ngaa feebar wala yow mi nga xam ne feebaragoo xamal ni sarax goog ngay sarax dafay faj dafay giifal meru borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit dafay faj li nga xam ne mooy feebaru feebar doomu aadama mbokk yi ginnaaw bu mbir mi weesaaroowee ba lu ëpp ci doomu aadama yi tey ñu tëj leen seeni kër wax nañu sax lu toll ak trois mille trois milliards doomu aadama dañ leen tëj seeni kër nanguñu ñu génn est-ce que dañuy toog di lekk nelaw parce que dañuy toog di seetaan télé ak yu mel noonu war nañu xool yow mi nga xam ne xëy na amoo woon jot bu doy pour jaamu borom subhanahu wa taala ngir jàng alquran ngir bëril ay naafila ngir bëril ay wooru gàtta nga war nañu xool toog bu ñu toog suñu kër ñu tëj ñu suñuy kër suñu programme dafa war a changé ñu jëm ko orienté ci li nga xam ne moo neex borom bi subhanahu wa taala bëri na borom bi di wax ay mbir yoo xam ne ngëneel yi ci nekk yàlla xam ne mu toll waaye bokk na ci aayat yooyu borom bi nee na إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة lan tabuur allahu akbar mu ne ñetti mbir yi yow mbokk jullit ku mel melokaan googu wala ku ko jëfee kooku dina am commerce goo xam ne du kooku dina am goo xam du perte amaana jamono yi nga xam ne ñi ngi ci tey jamono amuñu woon jotu ñetti mbir yooyu waaye jamono yi nga xam ne ñi ngi suñu biir kër ñu toog fa war nañ mën a am euh, li nga xam ne mooy programme ci ñetti mbir yooyu bi ci njëkk mooy inna alladina yatluuna kitaab allah ñi nga xam ne dañuy jàng téere borom bi subhanahu wa taala xaritoo ak alquran di wétalikoo alquran di jàng alquran di banneexu ci alquran di settantal alquran mu ne ñiy mel melokaan googu di ko jàng saa su ne fu ñu toll allahu akbar mbokki alquran dafa yéeme alquran boo koy jàng yow da nga am dalu biir alxuraan boo koy jàng coow li mun na bëri mais yow doo tiit doo rëf rëfi ndax na nga jàng alxuraan dégg borom subhaanahu wa taala garantie bi nga xam ne jël na ko digganteem ak ñiy gëm borom subhaanahu wa taala lu tax ngay jaaxle te borom subhaanahu wa taala wax ni inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun nga jàng alxuraan mu wax loolu mel noonu ñiy gëm yàlla sax ci njub mu ne ñooñu duñu tiit duñu jaaxle duñu jàq allahu akbar kon alquran moom moo lay fàttali yenn xoole ki nga xam mooy yaqub bi nga xamee ni natt yi métti na lool ci moom lu mu wax innama ashku bathi wa xuzni ila allah allahu akbar mooy alquran boo koy jàng da ngay gis da ngay gis yeneen ñoom ni ñuy delloowee seen borom ni ñuy delluwee ci seen borom su fekkee ne ay nattu ñëw na wala ay musiba ñëw na xoole ki nga xam ne mooy euh, yunus mbir yi métti na lool mais lu mu wax laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha la ant subhanaka inni kuntu min alzalimin nga xool Moussa alayhi salaam bu mu jaaxlee ba ay xeetam di wax ni inna la mudrakun qaala kalla déedéet inna maaya rabbi sa yahdin sama borom mi ngeeg man te sama borom googu dina ma dina ma ginti nga xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom mi nee na mook Aboubacar bu ñu nekkee ci xuntu mu metti lool ba Aboubacar wax ni kenn ci ñoom bu xoolal ay tànkam kon nañu gis yonent bi ne ko déedéet ma zannuka bis nayni allahu thalithuhuma waaye aboubacar loo xam ci ñaar ñoo xam ne yàlla moo la ñetteel ko lu muy tekki mooy alquran boo koy jàng ngay xool qisasul anbiya yi nga xam ñoo ci ñëw bu ñu nekkee ci jafe-jafe yan taxawaay la ñu amoon daf lay dalal da ngay xam ni kon ah man de coow li mën na bëri lool adduna mën na ñëw jaaxle waaye man en tant que jullit sama xel dafa war dal kon alquran googu benn ci façon zikri te borom mi ngi wax ni alladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah alladina amanu ña gëm yàlla seen xol dafay dal dafay sax ci tudd yàlla ah. jamono yi nga xam ne amoon temps pour julli amoon temps pour naafila guddi amoon temps pour bëril ay naafila surtout as sunan ar rawatib amoon jotam léegi nag yaa ngi sa kër mën ngaa teel a tëdd ndax sono toy ne coono yi mën ngaa jóg julli guddi mën ngaa respecté as sunan ar rawatib mu nga cee boole yeneen xeetu naafila kooku wax dëgg yàlla dafay gis ni kon xolam dafay dafay dal ndax mi ngi jokkoo ak borom bi subhanahu wa taala mbokk yi fatiha kese lu ci nekk ci borom bi subhanahu wa taala lu mu wax ci nit ki mu neex alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex lu mu ko dikk loolu lu màgg la te ki ko am mooy ki nga xam mooy jullit kese moo ko moo ko am mbokk ñetteel gi mooy wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya ànd ak situation lu mu métti métti métti dañuy joxe ci yàlla dañuy dimbali jaamu yàlla yi dañuy dimbali néegu doole moo xam lu feeñ la moo xam ci lu ci lu nëbbu la jamono yi nga xam ci lañ toll nii tey ñu ëpp ci doomu aadama yi xëy na seen liggéey wàññeeku na xëy na seen koom wàññeeku na xëy na seen aminu xaalis wàññeeku na yow mi nga xam yàlla baaxee na la tuuti ci alal ngay dimbali teg ñi nga xam ne mooy mooy jaamu yàlla yooyu noonu mu ne ñooñu nag yarjuuna tijaaratan lan tabuur ñooñu dañ am payoor commerce boo xam ne duñu perte duñu perte mukk mbokk yi fu ñuy tëjee mooy julit bu ne yu mel ni bu amee na xam ne muñ war na kenn ku ne ci ci ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ajaban li amri mu ne man Moustapha sallallahu alayhi wa sallam damaa yéemu lool ci mbiru ko gëm yàlla allahu man Moustapha sallallahu alayhi wa yéemu lool ci mbiru ko gëm yàlla mbokk yonent alayhi wa sallam ki nga xam ne dem na ba kaw asamaan dem bay wax ak yàlla sans intermédiaire kooku dafa mel ni amul lu war a yéem kon waaye ànd ak lool mu ne yéemu na ci mbiru ko gëm yàlla lu tax mu ne ndax ay mbiram lépp yiw la ay mbiram lépp yiw la te kenn amul lu mel noonu lu dul ko gëm yàlla kon ñun rek ñoo am loo xam ne keneen amu ko mooy ñeneen ñi bu ñu jaaxlee dañuy delloo mbir mi doomu aadama wala bu ñu jaaxlee mbir mi mën a sax àgg ba ñu demba xaru waa jullit bu jaaxlee fu mu koy delloo mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min kenn amu ko ku dul ko gëm yàlla in asabathu sarraaw shakara fa kaana xayran la bu fekkee am na lu neex am na lu baax mu santee ko borom bi subhanahu wa taala mu ne soobaa dafay nekk yiw pour moom bu fekkee lu diis ñëw na ci moom mu muñ ko teel a tax dafay nekk yiw pour yiw pour moom kon ñun amuñu pertement ci bépp situation goo xam ne ñu ngi ci bu fekkee lu baax la ñu sant yàlla bu fekkee loo xam ne lu métti la ci bakkan ñu muñ ko te borom bi subhanahu wa taala tax kon julit bi léppam yiw la dundam léppam léppam yiw la mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yiw yooyu nee na ñaari yiwa ngi ñu ëpp ci doomu aadama yi dañ koo sàggane nicmataani maghbunun fihima kathiru min annas lu ëpp ci doomu aadama yi dañoo sàgganee ñaari mbir asiha wal faragh muy am wér yaram ba mën a jaamu yàlla waaye tamit am jotu jaamu yàlla amaana yàlla baaxe nañu wérgu yaram pour jaamu yàlla waaye borom bi subhanahu wa taala baaxe nañu jot pour ñu jaamu borom bi subhanahu wa taala kon période bi nga xam yi ngi ci nekk wàccaay weeru koor ñu nekk ci weer gu màgg jamono gi ñu toll am nañu wérgu yaram amaana am nañu jotu jaamu yàlla amaana nañu profito jaamu ci borom bi subhanahu wa taala mbokki wallahi dee ci corona du gàcce waaye ndax xam nga la mooy gàcce dee dem safara mooy gàcce dee safara mooy gàcce yàlla subhanahu wa taala même sax buy bégal yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko yawma laa yuxzi llahu nabi bés boo xam ne yàlla du gàcceel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu maa ak ñu gëm yàlla ibrahim bu muy ñaan lu mu wax wala tuxzini yawma yubaathuun bu ma gàcceel ci bés bi nga xam ci ngay dekkil jaam ñi kon dem safara mooy gàcce waaye dee ci corona do gàcce ñaata ci ay jullit ñoo dee ci ci épidémie ñaata ci ay soxaaba ñoo dee ci épidémie bokk na ci ñooñu Muaz ibnu Jabal mbokk yi ndax xam nañ kame Muaz ibnu Jabal Muaz ibnu Jabal bokk na ci ñeent ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñoo gën a maîtriser alquran ci jamonom Muaz ibnu Jabal ci la bokk mbokk yi ndax xam ngeen kame Muaz ibnu Jabal Muaz ibnu Jabal yonent bi nee na huwa a'lamu nnaasi bil xalaali wal xaraam Muaz moo gën a xam xeetu lislaam lu dagan ak lu xaraam mbokk yi bokk ci ñi gën a maîtriser alquran bokk ci ñi nga xam ñoo gën a xam lu dagan ak lu xaraam allahu akbar kooku neexoon ak borom bi subhanahu wa taala ànd ak loolu épidémie moo ko moo ko rey mbokki keneen ki mooy abu ubayda amir ibnu jarrah mu nekk saxaaba gu màgg saxaaba goo xam ne doy nañu xam màggaayam alquran ay aaya wàcc na ci te yàlla mu dajee aaya gi mooy radiallahu anhum wa radu an yàlla gërëm na leen te moom moo tax aaya yi wàcc moo ko moo ko rey ki nga xam ne abu ubayda ba tey kooku bokk na ci fukk yi nga xam ne xadis ñëw na wax ñi ngi aljanna te moom épidémie moo ko moo ko rey keneen ki mooma yazid ibnu abi sufyan mu nekk tamit saxaaba épidémie moo ko moo ko rey kon jullit bu fekkee ni jàngat loolu yépp day xam ni man dal moo ma war tiit fu may waree mooy xañ bu ma xañ sama diine ak mooy yàlla yi nga xam ne wesaare na mën a wesaare ko na ci kaw suuf ba yi am fa lay tiitee te alhamdulilah euh, seen mbokk la woon Mouhamadou Moustapha Mbeng euh, di benn wala kenn ci ndonge yi nga xam ne góorlu ci jéem a jàng ak jàngale euh, ñoo nekkoon ak yéen jéem leen a fàttali lenn suñu mbiru diine ndax borom subhaanahu wa taala nee na dee leen fàttali ndax fàttali dafa njëriñ ñi nga xam ñoo ñuy ñuy gëm yàlla ñu fàttali daal ñuy njëriñ incha allah.